Ah. waa asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Comico asalaamaaleykum sama gars yi waa te ñu ñëw ñëwoon fii teew ak ci affaire Boy Niang bi nga xamante ne tey jii moo war a bëre ñi ànd si studio séeréer bi ah waa famille Boy Niang ngi nii mafia baa ngi nii tey Boy Niang war a bëre ñu war a ànd ak ah. sama gaar yi ñuy dem xool Boy Niang nu muy préparé ak nu muy préparé làmb ji ah Niang fii la dëkk ala supporter Boy Niang ala ñu waa ndeysaan nii lay demee nee naa leen Boy tey moo xewle te Boy Niang bu xewle ñun dañuy bàyyi suñu yitte ngeen ci ànd waa studio séeréer bi waa ndeysaan nii lay daal di demee saa su ne ma fiyaa baa géwél yaa ngi nii tey Boy Niang 2 xewle ndeysaan di xale boo xamante ne nii fu mu bàyyeekoo tey jii mooy àllu Baye Niakh bu jugee waa Niakh ñëpp jug bu jugee waa commune koo jug Tambour Major mooy borom àllu Baye ñaax di borom yëmbal di borom buun di borom benn faas waaw Baba tey loo xam ci combat booy ñaax. waaw sant yàlla rek xanaa di ñaan yàlla rek daan rek daal di ñibbisi comme ni ñu ko defee la rek waaw ñaan yàlla rek tey affaire bi moom tey xam na ne du yomb tey moom ku ne xam na ne booy ñaax moo xewle ah. waaw dama la booy ñaax bu jugee ngeen daal di jóg lu waral loolu. waaw waaw affaire moom c'est la famille parce que lim daf ñu koo ji quoi xamal ñu teraanga tamit xam nga. waaw tamit xam nga rek wan ñu loo xam ne nii wan ñu confiance goo xam ne nii tamit xam nga waaw fu ñu jaar tamit su jógee rek faa ñu jóg daal maa jaar mais tey Baba loo gis waaw waaw sant yàlla rek dama la loo gis sant yàlla rek tey fi ne waaw aywa kon maa ñëwaat ci kanam baax la li ñu koy ñaanal mooy yàlla ko yàlla fay xolam rek loolu rek mooy wax ji daal parce moom borom baax la mais tey loo gis tey ci combat bi tey ji ah Boy Niang koo xam-xam moom pare na moom Boy Niang moom amul loo ko mun a waxal ci làmb dul moom day pare combat da koy yoon day respecté adversaire am yàlla na ko yàlla may ndam rek. ñoom ñoo bokk écurie xam nga mu nekk sama doomu ndey tamit nekk gaayen bu cool xam nga nekk champion tamit xam nga ñu préparé ko xam nga fas yéene koo gunge làmb ja yàlla may ko ndam pare na daal moom pare na te yàlla na ko suñu borom defal ndam. ne ko xam ne xam nga ku ci am bis da ciy taxaw ñu bokk écurie mu am lu mu ñu wan xam nga amaana sax dañoo waroon dem màggal daaru mais ci li gën a yokk di ko ñaanal ndam rek ndam daal lañ koy ñaanal incha allah te boo jugee xam na ne ñëpp jóg barki demoo Ndiaye ñu seetaan la nga jàppante deg rek Reug daf ko lu rëy tey Boy Niang di sa doom day di sa xarit tey gisee bisam. waaw Boy Niang loolu dafa leer suñu xarit la suñu doomu ndey la te du démb la. te yaakaar naa ne bu amee bés war nañoo ñun lépp luñ jàppoon bàyyi ko ñëw teewal ko ndax nit ku ci nekk sa bés nga am moo waral tey suñ teewaay di ko ñaanal suñ borom defal ko jàmm may ko ndam lu seddu guy ndam lu gën ci moom te ñun wóolu naa ko ndax maag moom ñoo doon daje dinde di àndandoo di entraînement am na qualité mën na bëre nangu naa entraînement li fi des rek mooy di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam lu sedd kuy ndam lu gën ci moom te suñu xel dal na ci moom Ibrahima Mbaye sama gaay yi. booy ñaan lañ wax. lu doon wax gaay lu doon wax. lu ko wax. ah du yomb de waaw du yomb de. waaw affaire booy ñaan jàpp duma daan rek. ah ah ah, ah waatal bool bi ñu ne ah Pape jërë ma ceeb bi ceeb bi xonk na de ceeb bi xonk na de. waaw gàllankoor si añ bi añ a neex xanaa. ah mais xanaa ah, caméraman duñu añ. caméraman non day añ day añ. Ah. dañuy añ loo si bisu booy ñaata non ndam rek bu ah. allah tey moom ndam rek. day gaaw wala lu lu booy bi indi su ñëwee fi lu ko gën a pire. waaw kon daan naa ci yow. yaay booy nuyu naa leen. yéen waa kër supporter Boy Niang ay yaayu Boy Niang tey nu ngeen jàngatee bisu Boy Niang. ah Boy daal ndam rek laa si gis Boy Niang yeru na am na am na yar am na teggin boo dee xolom am na itte xolom rek moo koy may lépp te bu soobee yàlla ndam na ñëw tey fii. mais ah, bërëb lu ngeen si gis day gaaw wala day yéex man xam naa ne yaay yaay booy ñaar. ma ne day gaaw. da koy dóor mu daanu wala. da ah, ki ngeen gis ni mooy yaay booy ñaa te xam ngeen na doom nu mu mel si xolu yaay. yaay booy sa doom dafa yaru adduna bi yëpp ko seede koo wax mu ne la booy ñaar ku baax la booy ñaar dafa yaru. jox na ñëpp cër sa doom ji kon yàlla na ko yàlla suñu borom may ndam tey ah. yow ngay yaayu booy ñaa la wax tey sa bisu doom bi sama bésu booy ñaa daal di ko ñaanal rek ndamu jàmm ak salaam nag te mu doon te mu jik ko waaw booy ñaa yaru na booy ñaa baax na booy ñaa jullite na booy ñaa am na yitte xam na mag waxtu du ko raw man maay bàjjenu booy ñaa waaw may bàjjen ah, de moo di baay moo di yaay akay dëgg ma di ko ñaana nag yal na ko yàlla may ndam lu sedd guy yàlla fay ko xolam yaru na baax na yaatu na jullite na lislaame na loolu laa xam ci moom man mii di bàjjanam ku yëg nit la nag liñ koy ñaanal mooy yàlla na indi ndam li te da koy indi incha allah day sedd guy bëre bi du am 5 minutes maa la ko wax. Abdou am na yar am na teggin maa ngi koy ñaan ci kattanu yàlla ak yonent ci yàlla Muhammad ci barkab Xaadimul Mustafa mi ma yaakaar yal na ko yàlla may ndam. yàlla na ko fi yàlla indil ndam ni ci kàttanu yàlla yàlla na ko yàlla fay xolum ndeyam ba yàlla na ko wàllu tey xolu Binta Sadio ba yàlla ko wàllu tey ji ci kàttanu yàlla ak yonent yàlla Muhammad loolu rek laa koy ñaan. ah xanaa kontaan rek ndax Boy Niang dëgg yàlla borom baax la man sama mag la. billahi amul benn problème nitu kese ngi noonu ndam rek lay am nag wax dëgg yàlla ndam rek lay am ndam lu sedd guy lañ koy ñaanal mu dem ñëw indi ndam li ñu xàppi yaa ma gën a xam. waaw may ñaan yàlla yàlla na si yàlla wis ndox bu sedd guy. waaw direct bisu sunu bisu baay booy ñaar bi. waaw ndax bu dee ab yara ak teggin. ak xam kilifaam. mooy maye ndam. barke Rasulullaay tey day am ndam. ndax am na yar am nay teggin am na itte ku ma gis da koy def ni yaayam nun nag man nag maa ci raw ndax xaadim mi nga xamante ni maa yaayam ñoom kër googu rek mooy moo doon kër yaayam yaayam moom sunu xarit la woon lool sunu dëkkandoo bu baax a baax a baax a baax booy ñaan dañ koy ñaanal rek yàlla na yal na ko yàlla may ndamu sedd guy ci barke yonent bi mais tey damaa gis indi fi circulation boo xamante ne tey ji kan xamul nu mu demee noonu lu waral lool tey Boy Niang mel noonu nag ah. ndax daf lépp jëg mbaa xam ak yaram ak teeg ak bëgg ñëpp xam nga bu nit ñi daw di wuti xaalis yow dawal wuti aw nit ndax da ngay am nit am xaalis waaye boo di wut xaalis xaalis te nga yem te doo am nit tey damaa gis dee bi dawul clando yi dawuñu super yi fi daan dugg sax ñëwuñu ndax yoon bu xat lu waral loolu Boy Niang mooma ah? lépp lépp ci Boy Niang la rek baaxam ak yaram ak tegginam rek ndax bu daan ko mu romb du faale kon tey bu wootee kenn du ko wis ah, waaye dafa baax am am yar am teggin yëg mag ñi yëg yëg mag